ma jaay ma doole man ma jaay la xel naxante ba am la mbaraan 2.0 yaa dugg sama gaar dootoo ko defatee ndax am ma benn bicce ci mbaraan 2.0 teg la xel ndax la lekk li nga yor dugg samaan jaxase la ba nga mi sa wóolu sa bos na nga ñëw maa ngi lay xaar ci mbaraan 2.0 mbaraan 2.0 mbaraan 2.0 mbaraan mbaraan mbaraan mbaraan mbaraan 2.0 sai Allah waɗanda ke sa na majar kafa wani kuwa sama gaay wala te ni laa yeewa xam nga esar yamul yow def fresh laal sama kafe au lait te xale bu jigéen bu ma soxla nañu dem resto defar ba you know men? you know men? you know men? jël jël bul coupé bul coupé Sina Ba Sina Ba. waaw lu ma Sina ma wax. Sina Ba nga ñëw di ma Sina ma. defal li nga doon def defal li nga doon def ma kan? ya, def. ñu ma li nga li nga doon def laa bëgg di laata. waa Estar nii la yeewoo eh xool xool ma ci bët mooy wax yow ya nag mooy xool man du ma doom du ma ko jur ba pare mu di ya, ma yow li ma laaj la xanaa xaalis. bi ma la yóbbu la woon banque dem pour nga yóbbu ma. maman lan laa la wax si xaalis tamit na nga ko yóbbu dama lay ma xaalis daa war. yow man ngay waxante nan la xaalis bi koo xool mu da ngaa watal sa dara eh, ma ci bët man kenn du ma yaakaar yow ma xaalis bi fan la dugg yarew la fen te bëgg ay fen. maa la gën a bëgg di la nengal nengal ndax benn doom la. waaw gëmatoo ma nag xas daa wàdd. gëmatoo ma nag parce que bëgguma sa jikko gis nga góor bu baax bu xëyee day dem wuti mu liggéey bu li sama yaay yor na rek damay def lu ma neex nga taxaw di si nag ñàkk fayda naan xale bu jigéen bi ma bëgg a dajeel maa ngi war a def instant ni la mel foo ne waa instant nga kay instant nga dafa yëg afro bi di mel ni Michael laa bëgg après mu fa mu war. yow faa ma eh moo tax faa ma jël ay mesures ci yow gis nga góor day am fulla am fayda nangoo liggéey teel a xëy guddee wàcc di def devoiram ba mu mat mais affaire jaaykaar yi foo génn ñu lay mamu mooy jeex na daal et bu ma tontu wax ma xaalis nga waxal dëgg ndax xam naa ci dara ndax boo envoyé xaalis am naa am naa application bi ci sama ci sama téléphone yaa ngi dégg léegi laa ko xool dugaloo xaalis waxal dëgg yaa ma la ci fenn dëgg laa bëgg dégg. comment dama génn fii nii am ñu ma daje foofu. da ngay xale bu ñu naan tey ngaa wax dëgg.

bàyyi ma xaalis la fa wadd baal naa la ñun ñëpp ku ko for mooy gaañu léegi am na. waaw loolu moom expliqué la am nu mu demee dama dem ci benn gàll foofu noonu xam nga léegi moom yaa ma gën a xam jamono bi wax wax yi na correct dégg nga bëgguma yi ay yaa ma gën a xam yaa ma gën a noo gàll bi ma dem na correct. correct laa la yaa ay soo yu ma seetlu woon. soo yi lu mu doon yow. ma xam ay soo. sigil sigil sigil xol wax bi nag correct fan nga dugal xaalis moom bind gi dangay gaañu ku fi dee dañ lay jooy ñetti fan ñu fàtte la waaw daa am benn xale bu jigéen bu ma ko la des. waaw ah, a lakk dem jëla jëla téléphone ko ah. soo yi nga ne ko soo yëre mu tibbee ko soo yëre ñu def ñu def ci tànn foofu laay. ndax am benn biccee. ci maraan deux point zéro teg la xel nax la lekk li nga yor dugg samaan jaxase la ba nga sa wóolu sa bos na nga ñëw maa ngi lay xaar ci mbaraan point zéro mbaraan deux point zéro bien ce milieu-là. oh, je me sens bien. Oh, ça c'est la plus belle. Là, là, me semble. Comment tu vas Ah, ça c'est pour moi. C'est pour toi. Ouais, ni mala namee nag. ma raw la foofu. tey daal dama yeewu sama xel mi yëpp nekk ci yow. sama yaram di la laaj ma ne xaaral ma woo la gisoo tey dama gis changé la ko ñoo def classe xam nga da ngaa tubaabe te da ngaa bëgg lu baax moo tax ma defal la attaaya ndax xam naa da nga koo bëgg naanal. j'aime bien le thé. Mhm. tu sais Nadège. Mhm. vous êtes en bleu et en blanc. Mhm. vous me rappelez euh, ces belles noms. Nadège. tu sais Nadège c'est quoi. c'est l'efficacité. macha allah c'est la générosité. ak mu maa xam. c'est la beauté. dafa tubaabe nag. non yaa ma gën a tubaabee moo tax ñu mëna and ànd ñu euh, lenn de xam ko gis nga li ma namm ci yow dékki doyu añ doyu ma njoganal doyu ma reer doyu ma bëgg utiliser tey les quatre yépp pour passer plus de temps avec toi mais tu sais une chose mhm. est-ce xam nga ni euh, en amour mhm. mën nañu toog man ak yow trente jours duñu lekk duñu naan <laughs> parce que mbëggeel bi moo tax euh. te fi ma toll mhm.

xam bon appétit la un mm-hmm. appétit la si mm-hmm. na déjà, ma oui ba. oui. Je voyage ma ci mais ça c'est réglé. ah bon. on n'en parle plus. xam nga waxoon na la dama bëggon dem sama garde-robe parce que vraiment lo dem ci dëkk bu sedd ak ni may solo xam nga dama bëgg ay bien sûr na la ma mais tu m'avais dit combien encore Ben 400 000 lek. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Je, je, je, te le donne tout de suite. Si ben tu veux. efficace. Hum? Ben efficace. Je te le donne tout de suite si tu veux. Hey, tu veux le mériter. Hein, je, te donne un chèque. Bah, moi, bébé, vraiment. Oui. Euh, liquidité, moi, je donne arranger. Je te donne 400 000 francs tout de suite. Comment la boucle de avec moi, avec, mm -hmm. avec toi, si c'était 1 million, moi, je te le donne. d'avion, oui. Mm -hmm. hum? réservation hôtel. j'ai fait tout les plaques. je te donne les 400 000 tout de suite je te donne tout de suite. rek rek Mara épisode 14 séquence 1 prise 1. maa ngi mel kuy jaar eh eh eh moom wala ngaa salaamaaleykum doo fëgg ba mu ubbi. xool yaay karang looy wut. sëñ bi dala xanaa ba ni ngay wax loolu ma dugg ba nuyu maa ngi dugg naa salaamaaleykum bu duggee tëjee woon naa ko tëjee. bala bala ngaa dugg da ngaa war a wax koŋ na kan kan la dugg yaay wut ba pare. de eh? waxatu bi ndaw si. eh Nades. moom lañ soxla woon moom laa soxla mu ne. Nadès Nades Nadès la da nga am ki ku nekk assemblée. nga xam ko jaar. sëñ waaw. maa ngi négocier bul gàttal. ci lan. Nadège laa soxla. man ne nax am nga audience wala waaw dama fi dugg. léegi nag comme que nuy laaj ci njekk ak teraanga. waaw may ma ma dugg ci njekk ak teraanga. déedéet mënu koo dugg fii li laaj audience ne ku nekk ensemble nag bëgg naa ko xam may xam nga kër gi dafa am ay or ay ordre ak ay fii koo mu audience surtout néew ci liste bi doo fi dugg. lan la eh de. ma ñàkk sama ndey da nga jël coup sama loxo bii moo. yow yow yow. borom dëgg eh. naa jóg dëgg ma. dama eh, eh. xam may ma ma dama lay xamal man jigéen du ma yuuxu. puusal ma jàll. mënoo puus ku muy gëm may ma ma may ma ma jàll. xaaral xaaral xaaral xaaral. bàyyi gàtt bi jigéen ndox ma man jigéen. kii sama doom kii kan la xamoo kii kan la yow kii kan la. kii bi nu mu waxati. Nadès. yaa Nadès. man. Hmm. Nesda laa tudd. Nesda xanaa yaa Ndella Madior Diouf kon xanaa Nesda xam nga lu ma la bëgg a man duma liggéey sama xaaliss ba mu yegg ben xale diko lek ki dama ko jox sama xaaliss pour mu verser ma banque deuk mu ne ma wàcc fa neena yow la koy indil. man ki dama ko xam sax. neena na xamul yow xam la ko jox. mom doful gina jàpp ko pantongal ko ay yar dakk ay so top ko ba muy dof dof na xamé na da xàmmewu la gis nga xam nga luma la bëgg a yëgal mu gudd mu bañ mu neex mu nakal sama premier wax bu neex ak yow moy xaaliss bi la soxla tek ko fi man duma commerce deuk bu ne ma wàcc fa ben xalib tud lek sama xaal tay bi sama xaaliss mën ngaa teg sama xaalis wala mënoo teg xaalis. yoo xam fan laa la xamee. nga xamoo fan laa xamee laa la wax. eh dafa sën ndànk laa nga tegal ma reer ma boisson ma naan. après. ah après nga a xam. Eh? mu neex sap sap. bëgg laa jox xaaju xaalis bi nga jàpp sama nopp yi di si def lu neex ma jox la lépp bul dof sama xaalis yow laa ko jox. soxna si xam nga loo bëgg nga xam ko nga ànd ak sa doom te fi xam ngeen wéy kii boo ko xoolee xam ne li muy wax du wax ju mengo xale doo am yow eh bay du ànd ak ay moroomam. Nadège il faut arrêter. bu arrêté wul koy arrêter ma di fonto na la ba pare sen bi dégg nga. bul ma fonto man du ma sa moroma dina la sang da nga jouer film man xoolal man jouer mo film nekkuma ci ya tu ne vas rien recevoir de moi. taxawal bu wax lolu yow gisso nit ñi dañuy comédie. am gisso lolu tegg sa der ci man. eh yow xam nga lan laa la bëgg a ngay jengu di bandi bandi yow do bandi yow do bandi doo kooba. doo ngër ka doo ëbbalin caacoo dégg li ma la wax doo xottu pot ku jut bërëng xale sa kaw la ñuy jàng yéeg leeral sa bopp xam nga lu ma la bëgg a yëgal mu gàtt mu gudd kii lim la wax leer na dëful gi ne jàpp ko pantangul la nga ne xale bu tuut lu muy wut ci ay mag mag magum jëmm lu muy wut ci ay xale yu ndaw di reere ka def baaso ma nga def sama nopp bi neex mooy sa première ñàkk fay yéen a yàq dëkk bi waxal wàcc nag daanoo ci gën a gaaw boo ci xalaatul yel bu dam nga ànd ak sa doom te ngeen way nee na xam na fi dèjà mës na fee ñëw kon woowuma ko xëcciw ma ko iriw ma ko moo dox ak ay tànk ba ci sama eh. kër. bébé yow tamit gisoo eh. nit ñi dañuy comédie. Eh. ñaata loolu la ci 400000 laa ko yor. yow 400000 nga ko ah dama ne 400000 nga ko yore sama billet d'avion xool sama réservation yëpp dama koy dama koy arrêté. waaw mais xaaral bu tu n'auras xool yow gisoo nit ñi dañuy comédie. tu n'auras aucun rotin doo jot dara. maa ngi sama. waa xaaral xaaral toogal ma expliqué la yow tamit bul dem. di ma bàyyi wala la dem.

xam naa ni sax dara safu la ndax di bax Dakar ba Dakar wal wal ñuulu ko la motax nga nek xalé bi ki sama doomu doom la ki boo ko sax loy wax ak ma wara la eh, jaxal jogul nga genn sama kër jogul eh jogul sax leen fi yow da nga ndox sa afro bi ngay nok lakki dem jog jog jog jog jógal jam mo mu ma mel koy dox ci ay net ma ngi dem sigi soxna si génnal sama ma ngi dem ma ngi dikat do wayu do ban ni ngeen di def yak xalé yu ndaw yépp tijji seen i kër ci koñ bi dem mbaraan lu la ngeen dugg ci ci man ngay teerale na la leer ni maa ngi dem mais maa ngi ñëwaat te di nga fay xaalis waaw man kañ laa ñàkk fayda femme bi tiim ma fi wax ma lu ko saf génn dem yoonam ci sama biir kër <laughs> waaye nag nit moom boo nekkee ci defet wax dalay yomb xaw ma kan de waaye quatre cent mille dootoo laal attends yow ma nar a ci tamit médiateur laa bëgg a récupérer allo bébé waa taxul ma expliquer la taxawal xaaral demewul noonu waa kii coupé na ma de ana sama saak kërëb laa jëm maa ngi lay xaar ci mbaraan 2.0 mbaraan 2.0 mbaraan 2.0